gaynde da ngay gis jàmbaar muy nit ku bëri valeur euh, sama taan daane yaayam donc tubaarkàlla ñu ngi mi ngi ci état ñëpp non nan wax nag maa yéenay wax <laughs> ndoy baan doful de kaay nii aminta <laughs> aminta <laughs> e kaay nii duñu ko bàyyi aminta kaay nii aminta taxawal rek ñu seet la aminta waaw doxal nii ci ñëw rek dëgg la de non duñu ko baax kaay nii rek mbay ñoo la ko ñaan waa kaay nii rek mbay ñëwal rek mbay ñëwal nuyunu ñaaw yee Ndoye Bane gi su ko fekkoon toog sax jóg na. Ndoye Bane doful Ndoye Bane doful mbay. te Aminta dafa yokk loxoom. <laughs> Aminta léegi dafa changé ni muy doxee. Aminta léegi Aminta léegi dafa changé ni muy doxee léegi Aminta. <laughs> waaye fii xajul yow. Aminta ngi te Aminta gën neex xam nga xam nga nag Aminta désormais man ak Aminta ñooy gunge téléspectateurs yi El Hadj. ah loolu ne man bu 11h30 jotee léegi nii. man ak Aminta ñooy loo Pello. cey boobu di wax lu ko neex may wax lu ma saf. looloo <laughs> fort ba midi daal day wax lu ko neex. ngay def lu ko saf man may wax lu ma saf. <laughs> Aminta ngay wàcc ci ginnaaw on la retrouve euh, avec moi Amina Poté ma ngay préparé ak équipe bi ci ginnaaw bu ko defee euh, émission bi nag je rappelle que ce sera de la radio télévisée euh, puisque di ngeen mën a seetaan mais en même temps déglu ko ci King FM 99.4 première radio digitale du Sénégal mën nañ cee profité nag souhaiter un bon anniversaire aux natifs de ce jour puisque bëri ngeen ci di yónnee ay message à chaque fois ñu xëy ci yeewu leen bi daf ci am partie boo xam ni pour vous képp koo xamante ni bëgg nga bégal euh, peut-être sa nit wala sa mbokk wala sa xarit euh, bu la neexee nga yónnee ñu photoom ak message bi ngeen bëgg mu jàll donc loolu ñu ngi ciy ñëw dans quelques instants mais en attendant je rappelle que enveloppe yaa ngi tege vingt cinq mille ba deux millions ay ndimbal la yoo xamee ni moom la euh, Futurs Médias jagleel leen pour seen feetu tabaski xar yi ngeen di gis ci écran bi nag mooy xar yi ñuy maye te xar yi kenn ku ci ne am na tur ñoom buubaa ngi ci dëgg-dëgg buubaa ngi noonu <laughs> Kouthia ngi laaw la cat. Pape Cheikh a ngi. toj na mbay. borom yu gudd yi. waaw laaw la cat laaw la cat Mamadou Ndiaye ngi. dafa cobraane dafa cobraane da ci am nag kuy boo xamante ni poté la tudd. da ci am kuy kuy wa ca gën a rëy de tudd poté jombee ngi. waaw kay mu ngoog donc xar yëpp nag. Euh, seen i tur cest à leen di bu ñu leen di indi xar yi dañ leen di tappal seen tur ainsi dëgg la de cest à bu ñu dee jël bu ñu yóbbu poté mën nga benn kii rek mu lagg bu ñu yóbbu poté poté kuy bi dañu koy tappal bu bu ñu koy yóbbu ko yóbbu ki nu ko may dañu koy tappal abaa bu ñu koy yóbbu dañu koy tappal abaa Pape Cheikh bu ñu koy yóbbu dañu koy tappal ah, Modou Bale mii ab xar su ndaw la mooy xar wi ñu xam nga des fois nga jënd ñu may la ne mayaale naa la mooy mayaale naa la bi daam ñu jëndee xar yu bëri yi ba pare pour may ko oh. sénégalais yi kay jaay xar dafa benn benn leen am mayaale am mayaale naa leen bi xam nga maire yi jaay table yenn saa yi nga jënd bu ñu bëgg dañuy jékki-jékki yëkkati benn mbuusu gerte suukar am yóbbaaleel bi yàllaa ji xam nga donc bañ jëndee xar yi bay bay ñibbi am voilà ah. poté ngii poté jobbee ngi une poté <laughs> poté jobbe poté poté ulkil la ah, poté ngi waaw poté ngi laa dum la boo xam ni daal xaw ma nag kan moo ci daal nag ren ci tabaski tabaski 2020 ah. bi mais en tout cas xar yëpp am nañu tur voilà euh, xar bi xam naa ndooy bu mën mënta am poté day obligé toog këram di woote pour mën a am bii <laughs> waaw boo amul boo amul poté pire bi nga jël nga jël poté poté bii laa mais mais ndooy nag na tàmbalee defanteeg euh, Amina Ah. tabaski benn seet benn laadum bu baax boo xam ne bi day jël sept cent mille waa dëgg la ñëw yeewal ko xar bu rëy nga dafa war a jiitu waa dëgg la de balaa ngaa wax say wax te poté mii xam te xam naa jikkoom à un point boo xamante ni am na ay sacrifice yoo xamante ni barki borom Touba bu ko ndooyee defoon moom dina ko dina sëyeeg moom ndax yërmande waaw ndax dëgg la xam naa xale bi xol dafa rafet manquant la boo xamante ni gaaw yërëm ni da ngay ñu këram naan papa xam nga laan mooma daal man daal sama dëkkandoo bi daal moom daal xam nga rek yorul te lenn man dëkkandoo baa ko léegi gis na waa ji yërëmtalu muy jël dundu kër bi yëpp di ko ko wàccee tous les ci foofu la toll moom te man leer na ma ne ndooy bu taxawoon ci de ñëw indil ko xaalis bu bari jëndal ko ay xarak ak defal ko ay affaire ak yu baax xam naa ni xale bii dina ma ah pap bugguma woon sax mais ndooy dafa sonn ci man <laughs> dafa ragal ko sonn ci moom <laughs> gisoo saa yu bëggee bàyyi boo ko nee bu internet bi yëpp bindee ne naa bàyyi na day jékki-jékki ni xam nga yuusu rek njag xaw ma nu ma koy def <laughs> lay lay la léegi daal mu ngoog maintenant avant avant ñuy show di leen bëggal parce que dañoo bëgg a dàq stress xanaa rek ñu euh, jël leen ci euh, téléphone yi 88 628 22 22 jeexagul xar yaa ngi fi lépp ngi fi xaalis baa ngi fi jaaro or yaa ngi fi même jaaro or bi euh, bu nu ko mayee téléspectateur mu jël 88 628 22 22. wala 88 628 04 05 voilà donc continuez d'appeler ci biir yeewu leen bi puisque yeewu leen moom jeexagul ñu ngi ñëw ci bonus bi euh, dans quelques minutes bonus euh, yeewu leen en attendant ñu jàll peut-être Alaaji Malick ci anniversaire yi rapidement euh, puisqu'il est 11 h alors anniversaire yi dañuy njëkkee anniversaire Seydina Serigne Saliou Thioune Seydina Serigne Saliou Thioune nag euh, tey la euh, c'est de la part de ta maman de tes tantes et de tes frères ak toute la famille qui te souhaite beaucoup de bonheur moom tey la anniversaire am sa càmmiñ li sa sëriñ bi sama kii sama càmmiñ la sama xarit la sama sëriñ la bref jàmboose ñëpp ñu ngi lay ñaanal sa waa kër yi ñoom ñoom Menda ñoom maam ñoom yaa may sax ñoom may bichoo ñoom soxna Faati tout le monde daal ñoom mi daal ñëpp ñu ngi lay ñaanal jàmm sa mbokk yi sa xarit yi ñoom sëñ Saal Gueule Tapée kenn desul pour pour parce que mënuñu lim ñëpp. mais daal ñëpp ñu lay ñaanal bu baax man personnellement maa ngi lay ñaanal di la ñaanal yàlla mu bàyyi la fi ndax. fi ñu féete yàlla rek moo ko xam. joyeux anniversaire. Cheikh Béthio la bàyyam tudd. Mm. sangub Serigne Saliou bo jaamu Serigne Saliou boobu. Mm. Euh, donc moom sunu sang la. Euh, ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire di ko ñaanal gudd fan ak wér. ñu koy ndokkeel bu baax ak euh, njabootu euh, Cheikh Béthio gépp sëñ Saliou Guèye gël Tapée sunu xalifa ak njaboot gi yëpp yàlla na yàlla dëgëral leen ñoom ñu baax ñu bëri valeur la ñu xaadim tuun euh, suma xarit la ay nit yu baax a baax a baax a baax a baax balaa nga leen di xam sax nga jege leen. seen bay dee bay Cheikh. eh kooku kooku kooku tàmbalaay saa béy la woon. naqa rek la fi bay. walaay bayu fi gàcce. bayu fi taray gàcce. walaay mbay. walaay mbay lu ko waroon ci diine ji yëpp def na ko. walaay mbay. te nag dëgg dëgg nag bay Cheikh. dëgg-dëgg euh, berndeelam dootul am ci àddina eh! dootul xew mukk ci àddina loolu loolu rangale naa gi rekk mbay ñu dàq leen lépp di coggal anawa dëgg-dëgg te benn du des anawa lépp ñu dox ñu jox ko maam Saaliwu mu dox ko jox ko Xaadimu Rasuul mu jox ko jaam ñi anawa kooku nag béccoo rek la man bi mu demee laa gëj a gis <laughs> anawa bi mu demee laa gëj a ah, gis anawa anawa anawa naki anawa anawa rek mbay naki anawa pënd ba wuri rek animal bu njool bi ne Mauritanie ca désert ba nu mu tudd yi anawa man ci ci ci ci ci ci ci cheikh bi laa gëjee gis anawaa bi mu demee yàlla yàlla yokk leeram donc doomam ji ak njabootam yëpp ñu ngi leen di ndokkeel ay nit yu baax yu bëri valeur euh, joyeux anniversaire donc à Seydina euh, Serigne Saliou Thioune joyeux anniversaire aussi à Adji Niane euh, moom nag mooy madame Ndiaye mhm. ca cité cité cité cité cité Marina mhm. fa la nekk sama jabar la sama jabaru frère la Cheikh Ndiaye. cité marine di ko souhaiter un joyeux anniversaire aji ñaan yàlla defal ko jàmm may ko gudd fan ak wér. Euh, Cheikh na wax na ci leneen yokk yu ne gërëm na ko sant na ko jabaram bu baax la. Euh, comme ni ñu ko waxee yàlla na ko yàlla may gudd fan euh, di ko souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire. voilà DT bu amee yeneen anniversaire nga yónnee ñu ko parce que yooyu rek la ñu jot sama sët bi mbay. waaw yooyu. <laughs> sët bi Penda Xalla tey la bésam. bii la yee laay la maa góor sax mën na ana photo Penda Xalla. ay génne photo ana ana ana mag mbay. ana Xalla. la. ana Penda Xalla. Ah. indi ma xool tontu indi ma ci keneen rek. voilà voilà may yónnee ni photo photo photo Penda Xalla ah, léegi euh, maxu deetee euh, nit ku baax ku bëri valeur ki kon Khady euh, am na am am na bu mu jeeyeeg si léegi nii itam boobu day jàll bu mu jeeyeeg si léegi nii ci ci ci ci ci boyet boobu nga gàddu parce que boyet la boo xam ne ci lañuy ñuy recevoir lépp donc joyeux anniversaire à Betty Mbeng Betty Mbeng c'est de la part de Nogay Diop depuis Saint-Louis donc très rapidement on poste les photo Sidi Aj Malick mu donc Betty Mbengue on lui souhaite beaucoup de bonheur. Penda Xall suma doom la tey la anniversaire am euh, nanu wane photom gaaw très rapidement mu ngoog Penda ngi. ak a jonga eh, sët baa ngi. géwél bu ndaw la. xool ko mbay ni mu dooje. galle mi ngi nii mbay. galle ngooy la ndeyam tudd ma nga jidda ah, waaye nag Amadou Mbaye gar mi nag mooy maamam. Mhm. ak ajatu mi gay gay baru dam ci commune ci Gossas. Mhm. ma ñaanal ko nag yàlla dund. amiin. ba dama jox ma 4 4 ma war hmm. ci barkan sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla rek la mbay noonu ñu koy souhaiter un joyeux anniversaire c'est de la part de maamam El Hadj Man Mbaye Garmi c'est de la part de maamam euh, la toute la famille Mbaye ñoom Ngoy ak ñëpp ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér euh, Penda Khall happy birthday to you joyeux anniversaire à bébé Mohamed Niang on te souhaite beaucoup de bonheur dundal c'est de la part de toute la famille bi ci topp Abdou Aziz Camara la tudd depuis Suisse euh, on te souhaite euh, beaucoup de bonheur santé prospérité c'est de la part de Adja voilà et puis euh, bi mujjee ñëw anniversaire u Fati Diop la Fati nag mooy doomu Astou ak Diaga Diop doomu Asfal ak Diaga Diop ndeyam ju baax ji ci télé bi euh, euh, Amina Poté euh, moo koy souhaiter un bon anniversaire donc joyeux anniversaire à Fally Diop doomu Astou ak Diaga Diop on lui souhaite beaucoup de bonheur loo dund doyul Fally happy birthday to you. allez euh, kii an ñi anniversaire ñëpp ñu ngi leen di béggee Amet Ña Amet Ña tamit euh, fii lay liggéey ci télévision Futur Média tey la anniversaire am euh, c'est notre collègue c'est notre ami il travaille ici c'est un très grand caméraman ah c'est de la part de Mbaye Diouf Off c'est Amet grand la xam nga Amet ah xam nga doyen la xam Amet moo leen yar nag mhm. Amet seen grand la donc doyen Amet Amet Ña doyen ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire yo jabar ji nu mu tuddati ay boole xaw ma turu raar rek la jabar ji yor buubu xaw ma jabaru Amet buubu lees waaw lees waxul leesoo lees leesoo daa foogoon ni moom la Youssou wooy ma ne ko Youssou la lees moom la ko Ahmed di woyal guddi gi ni lees waxul Ahmed de temps en temps da koy woyal lees de lees donc Ahmed joyeux anniversaire caméraman la fii ci télévision Futur Média euh, moom ñu ngi koy ñaanal c'est de la part de tous tes collègues ku lim juum mais gars yëpp nañu quand euh, pour nee ñu euh, souhaiter la un bon un anniversaire et puis am nañu beneen anniversaire buba Prince Bouba Ndour. Mhm. Ndour prince Bouba Ndour si taaw Njaga xam nga ko <laughs> yàlla sekk la ban ban lien de parenté nga moom <laughs> ay yi ñu xam dafa bëri ñun marakala aw xam nga ka aw waxal nga dellu léew ca lébu ya aw waxuma la aw yow laay waxal kooku maa ngi ñëw ci moom soo amee ram yi voilà Apulaay la doon waxal donc bon anniversaire à Prince euh, Prince Bouba Ndour euh, taaw Ndiaga ak euh, Tata Mia moom nag mooy magu xale yi ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér on vous montre pas mais ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér Prince Bouba Ndour mooy taaw Ndiaga ak Tata Mia magu sama rakk yi magu xale yi on lui souhaite beaucoup de bonheur donc c'est de la part de toute la famille Ndour joyeux anniversaire ñuy béggee sunu xarit yëpp ak fu ngeen mën ci nekk on va continuer de vous faire plaisir en direct dans quelques minutes Amina Poté ak man mi Pape ak Poté dañuy papoté pendant que ñuy papoté yéen tamit di ngeen mën a woote bu ko defee ñu jox leen ci enveloppe yeeg euh, teranga yi nga xam ne ni ndimbal la ñu ko tuddee en attendant du Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax mhm. rendez-vous lundi matin incha allah incha allah Pape Cheikh rendez-vous lundi matin euh, c'était un plaisir en tout cas de partager ce plateau avec vous surtout di euh, gërëm bu baax El Hadj Mamadou Mbaye Garmi yàlla yàlla guddal fanam <laughs> jërëjëf ñu bàyyi la ak poté nga ngeen papoté yi kenn laa jëloon loolu cookoku. xam naa ne da ngeen am melokaan. femme bi wax na lu ñaaw loo xamante ne. xamoo lu ma la bëgg a yëg. mu ne ku ma jaxaani xëy ba paase xëy waay. man doo ma indi problème. lii yëpp yaa ko teg sa bopp. ay xar mu ay. Tabaski 2020 les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique. le trio de choc qui explose les réseaux sociaux. Trois véritables phénomènes, les meilleurs de leur génération, les maestros les plus puissants de la comédie, vous reviennent dans que sa mère, les docs de la scène, les plus fous de l'espace théâtral sénégalais. Cey fu ñu jëm cey fu ñu ak Saner ak Mbandumbe ak ak Ñanko le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi à suivre dans Spécial Tabaski sur Sénégal 7. dama laa wan ñàkk wala ñàkk fayda wala ñàkk jox cër ba respecté wu ma surtout yéen aawa yéen jigéen ñi nga xam ne yéen yéen pour yoon yéen yéen seen jëkkër seen borom kër sax pour yéen ay nelawam yéen a ko moom. jënd ci ñaari xar ñu teg comme ni nga ko daan defee chaque année. tabaskee benn bi benn bi ñu jaay ko def ci suñuy saf-safal. yaa tegg lii. waaw. bu ma njëkkati nga ni waxee. loolu mooy. neel kuy. ah kuy. kuy. yaay sa baba dina na koy. ray poobar yi man du si nekk di sonal sama bopp sax kii ba yeboo nga ray ko saraxa ko wala nga maye ko xool noo def moom. man liggéey laa xam guddi jot ma tëdd nelaw jàpp sama ñaam bëgg nga ay kebatu nag bal ay wax. daa bëggoon lay kii tëbel. nga papa dugal dugal dugal. papa yow ndelawaan bu bon nga am ni ngeen nelawee baaxul dara ah. <laughs> tabaski ci fajar laa ko jël incha eh, naa la ko indil ba ca kër ga. waaw baax na naa la ko ah, bëgg xar mi tëbu. waaw dama bëggoon xar mi tëbu ko. ah waaw loolu kay yow kay. bu mag baa ngi nii xanaa dégloo la grand tëbukat <laughs> day xar ah, baaxul dama laa bëgg rek xam ne ne amul à distance amul danger moo tax amul daal léegi xaar ma commencé ma daal wala sama karaw gis nga am naa karaw. xoolal <laughs> xar mi lu mu toll ah. bi maa ngi koy xont li may jox yow maa ngi koy def mais li xar bi di def day tiire rek. xar bi day tëb rek tëb mooy lan xamoo luy tëb. ala gawsu gawsu gawsu kolle neel gawsu mu indi jaasi gaaw xar maa ngay dee ma ngay dee nee ko ma daw si daw si gaaw gawsu gawsu. la ilaha Ndiaye gi dama gënal ma xar yi baax nga ma indil xar mu corona kii ba mu ñëwee ci kër gi di di wàccoog di di di reeku laa nga ne ma déedéet góorgóorlu ba indi fi 500000 teg sa loxo nga may def ni di ma jéem a ruube lii yëpp yaa ko def waaye nag auto solution. Euh, da nga koy yóbbu lakkul wala da nga koy ceeb. bii dafa noir et blanc. xoolal déet déet Cheikh léeg-léeg day dugg ci waañ wi déet xoolal. nga ne ko bëy ngay tabaskee. kan ci sama yumpaañ. sa yumpaañ lu ma ciy wax ak moom lu ma ciy wax ak moom moom ndigal lay wéyee di baal di jël décision sama ginnaaw. per bëy bi laay bañ a dégg ci kër gi bu wax wax du bëy. waxu bëy laa bëgg nga teg xar mii des si kër gi moom laay tabaskee bëy yi fu mu xam nañ jëm neel waaw. neel waaw ah, yar réew waay. comme maa ndax sama bopp rajo noppi bu jooy noppi bu jooy kilifa nga kilifa da jooy noppi naa. lii la la ah, lii léegi daal yow per da ngay wër say turandoo ca àll ba. Eh, <laughs> am xar ci boppam bu tëboo boo ne ko jàkk rek war nga koo xam man bu ma ko laalul woon sax mën naa xam ne xar mi tëbu na eh, Tange yaa ngi imaginer ñu xëy rek bëy yeeg xar yeeg yëpp rek deewandoo loolu noo koy imaginer action bu rafet la de per gu xar tas na këram per gu xar tas eh, na këram per gu xar tas na këram per gu xar tas na këram xippileel seen bët yi xool fan lay xewee